aw ma benn cabinet bu tudd Mercalex je ne suis pas actionnaire à Mercalex. mais da gis nga waaw xaaral ma terminé gis nga ñun suñu cabinet. Mhm. tuddul Mercalex. suñu cabinet mi ngi tudd. Euh, dama sonn waay cabinet bi nu mu sax ah. non fukki fan ak juróom-benn weeru octobre atum 2018 Ousmane Sonko amaloon na fi ab ndaje ak taskatu xibaar yi ngir rek yëkkati ay tuuma teg ko ci ndoddu Mamour Diallo nekkoon fi directeur général bu impôt et domaine. dafa xamle woon ni dafa luubal lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards ci kopparu réew mi ci benn dossier ndàmpaay bu aju ci wàllum suuf ñu duppee ko TF 1451 slash R. sur une affaire grave de détournement qui concerne Mamour Diallo directeur de des domaines et membre éminent de l'APR qui, qui n'est pas à son à, à son coup d'essai parce qu'il a été épinglé par d'autres rapports notamment l'IGE la Cour des comptes une affaire de 94 milliards, imaginez-vous. 94 milliards. Assis, assis sur du faux, c'est à propos du foncier, assis sur du faux. li doy waar mooy file ci réew mi boo luubalee xaalis bu ni mel dafa war a fekk mu nekkoon ci biir budget bi naka la ab liggéeykatu nguur gi mën a luubal lu toll ci juróom fukk ak ñeenti milliards ci kopparu réew mi te amul fenn foo xamante ni feeñ na ci budget national bi Ousmane Sonko ba tey jii mënul wax askanu Sénégal naka la rek Mamour jàll mile luubale lu toll ci juróom fukk ak ñeenti milliards ci ban banque la ko def wala sax ana ay firndeem leaderu Pastef bile ba léegi nii amul benn firnde goo xamante ni sax mën na ko indi ci lu aju nag ci téeméer goo jël fukk ak ñaari pourcentage yi nga xamante ni mi ngi ko doon sàkku ci njaboot yile mu nekk ci xayma lu tolloog fukk ak benn milliard bu tegal ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk million ci kopparu réew mi. Ousmane Sonko boobu ba tey dafa muuma euh, ci li nga xamante ni nag mooy loxoom ni mu duggee euh, ci mbir mile ndax ci société am bii ñu duppee Atlas la ko jaarale lu tax bu ñu fàttalikoo euh, ci 2STV fanweeri fan ak benn weeru décembre atum 2018 Sonko daal dina xamle woon ni amul benn këru liggéeykaay goo xamante ni moom moo ko moom bu laalee ci xaalis bi toll ci juróom fukk ak ñeenti milliards ci kopparu réew mi te kenn mënul sax indi firnde gi. donc amul benn cabinet boo xam ne man bokk naa ci bu nekk ci dossier bi loolu ku ko wax waxul dëgg te du ko mës a prouver. waaye li mu xamul mooy contrat bi nga xamante ni nag xaatim na ko ak njaboot yi le mi ngi ko jaaralee ci cabinet bii ñu duppee Atlas contrat boobu le nag moo weddi li mu doon wax. ci beneen meeting goo xamante ni nag amaloon na fukki fan ak juróom-ñett weeru janvier atum 2019 ci place de l'obélisque moom Ousmane Sonko nekkoon fi candidat wu Pastef waat na ni ñeent fukk ak juróom ci kopparu réew mi daan nañ ko jël dugal ko ci benn compte boo xamante ni nag banque bi mu nekk moom xam na banque ba xam na yi tamit turu ñi ko def waaye boobule waxatul waxum juróom fukk ak ñeent milliards yi ñu luubal ban banque la defee li ñuy def ban banque moo fay 46 yi dinaa ko jox numéro compte bancaire yi waaye li saytukat yi gis mu rekk commission d'enquête parlementaire bi assemblée nationale yi yëkkati moo di bank yi lee nga xamante ni saytu nañ ko amul benn ci bank yooyu bu dëggal bii le xibaar son ko joxe. ñu gis ni leaderu Pastef amul lenn luy firndeel ni virement wu 46 milliards di ñeent fukk ak juróom benn milliards yooyu le am na li ci gën a yokk sax mooy amul benn lettre de confort banque yooyu la nga xamante ni assemblée nationale seytu na ko amul kenn ci ñoom ku dëggal waxu usmaan Sonko yi kon nag laaj bi samp mooy ana ay firndeem yi wane ni boobu boobule am na li ngeen xamul yi tamit moo di fukk ak benn milliard bu tegal ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukki million kopparu réew mi li nga xamante ni Ousmane Sonko mi ngi ko doon laaj ndàmpaay eh, ci njaboot yooyu lee ñi ngi ko waroon nag dugal ci compte bancaire bu Mercalex doon yi tamit lu mu moome ci numéro bi di 03 61 84 35 63 01 nga def tiré CBAO Clair de Lune. adres bi di avenue Cheikh Anta Diop angle rue Léo Frobenius kon nag bii la député Pastef na génnee ay firndeem euh, ci virement bi aju ci ñeent fukk ak juróom milliards yi ay seetlu nag am na ci ñu jox leen benn bu njëkk moo di luubalu juróom-ñeent ñeenti milliards ci kopparu réew mi du dëgg ndax amul lenn loo xamante ni am na lu ñu seetlu ci lu manqué ci budget national bi ñaar Ousmane Sonko moom loxoom taqe na bu baax ci mbir mi ndax dafa jaaree ci société bi ñu duppee Atlas ñett virement wu ñeent fukk ak juróom milliards yi du dëgg itam ndax usmaan Sonko amul lenn loo xamante ni mën na ko indi ci firnde te nag banque sax dañ koo weddi ndax commission d'enquête parlementaire bi ñoo ko saytu ñeent usmaan Sonko dafa bëggoon rek moom daal di dugal ci gafaam ci lu jaarul yoon fukk ak benn milliard bu tegal ñaar téeméer fukk ci million kopparu réew mi xaalis boobu nag waroon jaaree ci compte Mercalex kon beneen laaj di samp Ousmane Sonko mile kañ lay mës a ubbi gémminam ngir wax dëgg askanu Sénégal